salaamaaleykum mbokki internet yi li fi jot a ruusa dañu koy dooree ak njaganduur bu TFM ginnaaw bën ko dooree mandat de dépôt coowam ak El Hadj Ndiaye mu ngi ni jukk ci kanamu juge bu Sénégal moom mi nag di El Hadj Ndiaye moom moo plainte ki nga xamante ni moom mooy njaganduur bu TFM seen coow la fi ñuy wax ak yéen mu ngi ci kanamu juge lu ci mënti am dinañ leen toppal xibaar yi fii ci Jokko TV Adja Thiaré Diaw mi amoon ak problème Kalifone Sall fi ñuy waxanteeg yéen kii di Adja Thiaré Diaw moo publier suñuy naat naataango di wàlleeral leeral ñoo ko reprendre moom Adja Thiaré Diaw ma ngay xamal sénégalais yi di leen yàkka lu mel na xeme ndax nee na coowam lii sénégalais yi dan ko si seetaan nee na moom nag bis ni ki tey bëggatul am nationalité sénégalaise ñibbi na fële sa réewam ba mu nekkoon di France lu ne yàkk na ko sénégalais yi waaye moom mi le di Adja jaw Diaw lanu daan Californie est-ce que sax duñ ko ka daan ndax ki nga xamante ni moom mooy Californie avant muy tëdd fële sa prison ba dooroon na ki nga xamante ni moom mooy Adja Thiaré Diaw plainte Malick Thiandoum ma nu invité woon fële sa plateau bu Sen TV moo yàkkalu mel ne xeme waa nguur gi ndaxte nee na leen lan moo waral kii di président Ousmane Sonko di génn di def doxantu rek ñu yónni gendarme yi ngir ñu koy escorter nee na loolu violence la ndax ki nga xamante ni moom mooy président de la république barki Dembo Ndiaye kese la ànd ak première dame di doxantu ci corniche bi. ku nekk am nga droit doxantu dem fu la neex lan moo tax kii di président Ousmane Sonko génn rek ñu yebal policier wala ñu yebal gendarme yi mu mel ne kii di président Ousmane Sonko dañ ko bëgg a ak àqam ak yelleefam du suñuy kàddu kàddu Malick Thiandoum la fële sa Sen TV. sport mooy buur suñuy xibaar kii di Sadio Mané l'enfant de Bambali Dembo yi ñu daal di koy sagal fële sa Paris ginnaaw deuxième ballon d'or bi nga xamante ni jël na ko si kanamu ay naataangoom. kanu jox ballon door ba nekk di Karim Benzema kii di champion d'Afrique bi la di Sadio Mané ba mu jëlee kàddu ma ngay gërëm ki nga xamante ni moom mooy Karim Benzema di xamal àdduna bi nii kii di Karim Benzema dafa mirito bi ballon door Sadio Mané nekk fierté si monde bi waaye nekk fierté si Sénégal yépp